jërëjëf taxaw du parti jiitewuma parti mais ànd bi ñu ànd ay góor ak jigéen lañu yoo xam ni dañu gëm réew mi ñun ñëpp ñu gëm ni am nañu lu ñu war jëriñ réew mi lu ñuy apporter réew mi pour son développement fii Sénégal moo woote àdduna bi yëpp sax la lii dal mais li nga gis lecture moy que ñepp xam nañ ni and solution moy réponse moy solution ba ñu ñewon wuy ci lool waxtaan wi ñu waxtaan ak président ci nan la ba pandémie bi Sénégal mën ko affronter ba doon affronter ko de manière efficace lool li nga wax kilifa nag ngay génnee ci bitti mais li am solo mooy rafetlu nañu mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko yaakaar nañu gëm nañu sax ni ça va dans le bon sens c'est les bonnes mesures et que su ñëpp taxawee juboo déggoo ànd yàlla mën nañ ci may dam parce que looloo am solo parce que lii nga xam ni dafa dal àdduna bi yëpp ku nekk xam nga ni jombul kenn tànnul ku muy daal ku nekk lay daal donc fagarlu am taxawaayu mag am taxawaayu déggoo loolu rekk ñu ci mën jële moo tax félicité nañu gouvernement bi ci li mu def wax nañ ko suñu xalaat pour mu gën a efficace mais dañuy gërëm ak a sant métit lu yi nga xam ni dal na leen félicité corps médical bi masawu diaspora bi nga xam ne ni mu koy vivre metti na engage engagé sénégalais yëpp ñu xam ni jombul kenn te kenn mun ci rëcc mais suñu àndee rek yàlla mën nañ ci defal sutura